salaamaaleykum wa rahmatulah mbokk téléspectateur yu global télévision jërë jëf ci teewlu bi bismillah ci xibaaru marax bi léegi léegi ñu wax leen li ci gën a fës. li ciy gën a fës nag bokk na ca liggéeykat yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ca poste seen uh, bopp daal dinay ubbu ba toll ci ràpp dara waralu ko rek lu dul uh, boîte boobule fi ñu toll tembe dafa am ay difficulté uh, ñeel wàllum koppar looloo waral boobu ba léegi nag jotuñu seen salaire. Euh, di ngeen teewlu ay kàddu yu Coly Cissokho mi nga xam ne ab syndicaliste la euh, foofu foofule ca poste. ñu wax ci leneen leneen lu soxal nag mbirum exploitation sexuelle maanaam nag xale yi nga xamante ne ñenn ñi dañ leen di sàkku ñeneen ñu leen di puus ci jaay seen bopp mu nekk ab euh, situation boo xamante ne euh, dañ koy jàkkaar ay euh, jafe-jafe yoo xam ne dañ koy jàkkaar lool fi nga xamante ne moom mooy ci mbedd mi ci loolu nag bisub tey rédaction bu Global Télévision daal di wàcc ci mbedd mi tàllal micro yenn ci ay sénégalais njur njaal ñuy jaar ci jox li nga xamante ne moom mooy seen xalaat xibaaru euh, bitim réew ca Mali nag euh, jàppante am na diggante elimaanu jëwriñ bi di Choguel Maïga ak ki nga xamante ne moom mooy euh, ñi nga xamante ne sax laay wax mooy way takku der ya mu mel ni ab crise am na ca état bu Mali ba tax na nag ku nañ koy waxtaane daañ ci xuus ci biir yaatal gi mbokk yi loolu moo nekkoon li ci gën a fës bu ngeen taaxee loo ñu faram fàcce ko jërë ngeen jëf 19h tegal na ay simili euh, bismillah ci xibaaru marax bi ni ma leen ko waxee woon rek ci bi ñuy door euh, ca post nag société nationale poste euh, daal dinay am ab difficulté maanaam ay jafe-jafe ñeel wàllum koppar ngir rek daal di mën a fay salaire yi. Euh, li ko dalee la cinq comme nag liggéeykat bu nekk ni muy fayeekoo li nga xamante ne mooy salaire waaye nag octobre ba léegi euh, ñu ngay fay seetlu ay retard de salaire euh, loo xamante ne nag liggéeykat di ñu ngi koy naqarlu di ko métitlu bi la situation nag mënta woy suñu sukkandikoo ci ay kàddu si soko mi nga xamante ne coordonnateur délégué Euh, chargé des revendications syndicales de la poste mom seqoon na waxtaan ci téléphone ak Mansour Diassé ñu teewlu ko. waaw euh, li nga wax nonu la lu ça fait des mois des années depuis octobre 2022, nous avons nga euh, retard salaire bi taxone na ba travailleur ci mbedd mi tous les sénégalais ont suivi ba taxone ñu amone changement de directeur général état aussi jël la responsabilité de se substituer à la poste pour le paiement correct de ces salaires là alors mais depuis boobu aussi en général retard yi dafay nek li am day am quoi di li li jamono ji nak li tax mu metti moy euh, mois bi passé defe naa yéen sax euh, fekkee woon ngeen sitting bi nga xamni mom le travailleur organisé won au niveau de la direction générale de la poste moy di ouverture classe la won postier yi mënuñu inscrire seen doom à temps euh, ba nga xam voilà c'était des questions yoo xam ni suñu la dañu koy laaj lu tax duñu inscrire ñu leen jànguñu donc loolu moo revenir c'est en tout cas les problèmes bi résoudre depuis tout ce temps là mooy chaque fois c'est des retards de salaire bu weer bi fonctionnaire yi nañ fayee ko à partir du 24 25 jëm au plus tard le 30 mais ñun au-delà du 8 sax tu n'es pas sûr de euh, percevoir ton salaire waaw c'est c'est c'est c'est c'est un peu normal parce que depuis des mois des années ñun syndicats yi dañuy wàcc ci terrain bi di wax di communiquer euh, euh, mauvaise gestion bi fi doon am ak yooyu yëpp conséquences yi moom moo indi lii lépp alors donc bi loolu amee tamit euh, euh, état aussi dugal loxoom ci mbir mi di di di di jàpp ci paiement de salaire yi mais da ngay gis ne malgré que état mi ngi parce que poste société nationale la état moom moo ko moom à 100% pour cent li ko waral nag moom mooy tension de trésorerie le la poste dafa dem ba pour xaalis bi nga xam ne c'est déterminant ci liggéeyam dafa nekk lu fi rare alors bi loolu amee ça va commencer d'abord ak sunu clients yi mooy client client caisse d'épargne client chèque moo xam da nga fi am transfert moo xam même IPRES bi nga xam doon liggéey ak moom ba finalement mu dem euh, liggéeyatul ak poste ñàkkum xaalis moom moo ko waral dafa dem nag ba commencé nag di laal travailleurs yi. kuréel gi ëmb nag fajkat yi jaaykatu garab yi ak it ñii di opéré wàllum bañ fi ci Sénégal ñu daal leen di duppee commerce ñoom it euh, taxaw nañ teem ngir organiser ab euh, marche vendredi bu 10 heures jotee lii lépp pour rek daal di naqarlu li nga xamante ne diggé woon nañ ko. ak kilifa yu bees yi waaye boobaak léegi euh, France ñu gis ne nag ñooñu le euh, lu ñu taxaw temb mooy ñu daal di leen di delloo li nga xamante ne moom mooy seen gëdd teg ci daal di cëral euh, ñi nga xamante ne ay fajkat lañ naam waaye amaguñu diplôme ci spécialisation la ñu toll docteur Babacar nag indi na ci ay leeral moom mooy secretaire général collectif des médecins pharmaciens

ci loolu noonu bokk na ci li nga xamante ne moom mooy statut bi tey jii nii ñu reconnaître docteur en spécialisation boobu boo noonu njëriñam ci hôpitaux yi ndax gis ngeen ne biñ grève ba léegi hôpitaux yi ça va au ralenti nekk nguur gi euh, mu ngi sax jéem a xool nu mu koy compenser waaye ba léegi am naa ne vide boobu mënu ko compenser ndax docteur en spécialisation bi mooy ki nga xamante ne euh, population bi suñ fekkee hôpital moom ak interne bi lañ fay ëpp lu ñuy fekk te dañuy xëy huit heures daanaka ba dix sept heures chaque jour mois sur douze te loolu noonu muy liggéey yëpp amul benn payoor boo xamante ne ñu ngi koy teg ci loxoom pour euh, neexal ko te léeg-léeg sax dañ koy wax muy fanaan hôpital te fanaanee ba wàcc juróom benn téeméer daanaka la ñuy teg ci loxoom docteur en spécialisation boobu jigéen ñi nga xamante ne dañ koy def tey faral di wannu lor ñoom li ñuy woowee congé de maternité mayuñu leen ko te loolu noonu dafay tax ba ñi nga xamante ne ñoom ñooy spécialisé wu charge de travail bi ñu leen di imposé dañ ciy faral di def ay complications ki spécialisé wu di digal population bi suñu ëmbee ñuy wàññi yéen liggéey moom ci boppam su ëmbee dañ koy xañ mu dem noppaleku su euh, ëmb bi sore donc loolu noon tax bu ñu ci bëri am na ci ñoo xamante ne dañ ci ñàkk seen doom am ci ñoo xamante ne dañ ci jëlee ay lor lor yoo xamante ne ba léegi nii nii daf leen di waaw ah ñun day euh, comme que ci euh, gouvernement buy woote rupture lañ nekk yaakaar naa ne amul wenn luy war a mën a tax ñu bañ a autoriser doxum ñaxtu boobu ndax déposé nañu ko ci délai ñu wax ci anam yu ware ak li réglementation laaj na ko yëpp def nañ donc dinañ jaaxal loolu ñu bañ a autoriser marché waaw su fekkee tamit dem nañ ba au dernier moment te nangu luñ ko tamit am na yeneen pexe yoo xamante ne soobee yàlla ñu desandi lu soxal wàllum wérgu yaram ñeenti weer boobaak léegi bu nga xamante ne nag agent yi daal nañuy wër euh, fépp ci Sénégal daal di dugg ci lekkool yi nga xamante ne fa ñuy euh, tàggate ñuy liggéey ci wàllum wérgu yaram benn audit boo xamante ne nag daan nay wane ne ay jafe-jafe am na ci euh, école yi leen la nga xam xamante nag mën nañ ko fa seetlu mooy ñàkkum accréditation ci yenn ci école de santé moom euh, mi nga xamante ne moom mooy docteur Malaw ngam euh, daal dina koy leeral euh, maam Awa ci téléphone le ministère de l'enseignement supérieur moom moo am droit contrôler njàng mu kawe donc école bu nekk ci dëkk bi moom tamit war na mën a saytu xool ba xam est-ce que tegu na ci yoon wala teguwul ci yoon. te li nu gis nag seetlu ko mooy école yi nga xamante ni si ñooy formé ñi tudd infirmier yi ak ñi nga xam ne sage-femme yi na ci dëkk bi bëri waaye goo xamante ni contrôle bi amul. te dafa am benn organe bu tudd ANAQ-SIC moom moo am droit di contrôler école yi. mais moom rôle boobu noonu su ko deful day am ay répercussions ci njàng mi te bu amee ay njeexital njeexital yoy non nak su ñëwaatee day am ci faj bi da amé ci faj bi boba système sanitaire bi modul jaar yoon te ngi nonu le plus souvent bu ñu paré seeni diplôme kenn du ko reconnaître té nit nak su fekkee da ngay liggéey da nga am diplôme bo xamanteni si reconnaître nan ko pour nga mëna liggéey normal donc motax sante ministre bi continuer def li nga xamanteni ni si mooy enquête bi té bu paré nak sanction yi nga xamanteni ni si war na ko ci jël mu jël ko école yi nga xamanteni ni si ñu en règle mu tej leen parce que njang ci walum santé lu am solo la ñu ko caaxaane ba nga xamanteni ni si kum neex tijji école def sa neex ta do am accréditation du am habilitation. jërëjëf ñu desandi ci xibaaru marax bi ba tey nag ñu daal di wax ci wàllum politique ki nga xamante ne moom mooy Amadou Ba nag nga xamante ne moom moo nekkoon wujju jiitu réew mi tey di Bassirou Diomaye jaxaar fay nekkoon na fi it elimaanu jëwriñ ji Amadou Ba nag ci élection législative anticipée yi ñu jugee. ñeel élection yi pencum ndaw réew ma suñu sukkandikoo ci kàddu Bakary Domine Mané li leen nag euh, mën naa tax euh, li nga li nga xamante ne moom moo ko sooke mooy xëy na ber daaraam bi nga xamante ne da ko ber daara daal di euh, ut yëfi boppam benn discours boo xamit tax na ba électeurs yi mujj ko votel ca pencum ndaw réew ma kon Ndella Ndiaye daal dinay weccoo ay xalaat ak ki nga xamante ne moom mooy docteur Bakary Domingo Mané ñu teewlu ko ci li nga xamante ne mooy xibaaru marax bi jërë ngeen jëf Amadou Ba euh, dafa wàcc trop euh, disons si élection législative puisque présidentielle a en mars dernier mon deuxième position après euh, Diomaye Faye le fait que mu nañ ko une partie de l'électorat de Benno pour Amadou à la présidentielle de 2024 électorat voté euh, votewul bi yoon Amadou Ba parce que dañuy dem n'est-ce pas si Macky Sall wala ñu dem si ñeneen ñeneen tête de loolu mooy première explication bi deuxième explication bi mooy Amadou Ba image am dañ koy xool bët boo xam ne daal politicien boo xam ne la daal dafa bari xaalis dañu ne saa dafa am ay milliards bu ñu gisee Amadou Ba rek mënuñu mënuñu ko wooteel parce que pour ñoom il n'est pas normal qu'un fonctionnaire puisse avoir un euh, am donc Sénégalais ne serait-ce que pour ces raisons-là n'ont pas préféré voter pour Amadou Ba maintenant moi discours c'est-à-dire que le discours de campagne de disons de de, Amadou Ba même fait que il n'est pas dans l'invective mais discours da nga war a am càcc surtout en politique dafa war a am càcc bu buy wax ak nit ñi pour que nit ñi man ko déglu dëggantaan or discours euh, Amadou Ba c'est un discours boo xam ne la du du du emballé nit ñi maanaam dafa voilà c' c'est très neutre voilà nekkul nit boo xam ne daal nekk nit ku boo xam ne daal mun na arrangé ful mun na wax loo xam ne daal nit ñi mun nañu reetaan nekkul nekkul façon boobu te loolu dina nekk dina nekk handicap si moom su fekkee bugg na jouer le premier rôle vraiment si politique Sénégal. jërëjëf Ndella Ndiaye tey jii nag di ñaar fukki fan ci weeru novembre bis bi nga xamante ne moom lañ jagleel ak ak yelleefu xale yu ndaw yi di tuut tànk yi benn nag occasion ngir rek ñu daal wax. li nga xamante ne moom mooy solo sax yelef euh, tout tànk yi ay euh, million yi doomu aadama daal nañuy continuer euh, ci li nga xamante ne moom moo soxal wàllum ñàkk ak li nga xamante ne moom mooy violence leen li di ñàkkub jàng moo xam nag mu nekk njàngum diine wala njàngum nasaraan loolu nag bokk ci rapport yi nga xamante ne daal dina koy publier Amsatou Gano moo ci gën a xuus fan ci weerum novembre ci at 1959 assemblée générale bu ONU nak dal de jël ab ndokal jëm ci sam ak ak yelleefu xalé yi li ni mel nag ñu nañu nak andu ñu won ak bile décision nak waaye tey ji nag lu toll ci 196 dëkk nak ño daal di ànd ak bile décision bokku ci dekk yi nga xamanteni rek dañ fay sam ak ak yelleefu xalé yi li ni mel nak di fësal importance bi nga xamanteni rek daan na koy am looloo tax tey ji ci alarba bi ñaar fukki fan ci weerum novembre nak ci atum 2024 bi ñu nekk nak ñi màggal 66

xamante rek war nañ ko amal ngir ak ak yellefu xalé nak ñu dal diko gëna gën a respecté nag ci aduna wérngal ke li ñu mel nak nekk combat bi nga xamanteni rek UNICEF amum lay amal bés bu yàlla sàkk tey nak ci ñaar fukki fan ci weerum novembre nak dina mobiliser ab mbolo bu takku li ci melni ay partenaires ngir daal di amal abile xex nak ak mo nekk ali di mission am fi nak ci réewum Sénégal nak muy jànkonteel ay jafé jafé jëm ci walum éducation xalé yi ndax ñu bëri ci ñoom nag nekkuñu ci l'école ba 83 ci budget bi nga xamanteni rek dañ ko jagleel ali di ñàng njàngum xale yi nag dañ koo def nag ci école yi donte nag lu toll ci yooyu la xale nag daanaka a jànguñu si bu ñu sukkandikuwee ci rapportu Sénégal bi nga xamante ni euh, a amal na ko ngir ñëpp nag daal sàmm ak yelleef ñu des ci bis bi nga xamante ne moom mooy euh, bis bi ñu jagleel ak ak yelleef euh, tout tànk yi looloo waral rédaction bu Global Télévision daal di wàcc ci terrain bi reportage bis bi mu daal di koy jagleel xel ñi nga xamante ne ñoo ñu yooyoo xale euh, ndax waxoon naa leen ko it euh, ci bi ñuy door résultat yi nga xamante ne nag euh, image yi daal dina koy indi ci mbeddu ndakaaru yi mu nekk ay image yoo xamante ne nag rafetul ci gis-gis ndax yenn ci ay xale buñ leen utiliser wul ngir teg leen ay liggéey yu métti di leen liggéeyloo te amuñu at yi nga xamante ne moom lañ war a liggéeyee Euh, ñeneen ñi ñu ngi leen di euh, sàkku bile situation nag population euh, bu senegal daal di koy naqarlu daal di woote nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy kilifay réew mi ngir ñu bàyyi ci xel daal di nag aar xale yooyu le ab reportage la ñu fi Jibril Ñaan ak ki nga xamante ne mooy Boubacar jaañ daal di defal ñu teewlu leen. bisub ñaar fukki fan ci weeruk novembre di bis boo xam ni moom lañu ñu dara jaale ak ak yelleefu gone yile ci àdduna wërngal képp. loolee tax ñu di ci parax ndoll ngir kon mën a xool bu baax a baax seen dundin waaye itam nag jëf yu ñaaw yi nga xamee ni ñu ngi koy def ci kaw xale yi lay de wax dëgg yàlla ak yonte bi seen journée moom wax dëgg yàlla bu jotee war nañ ko mën a respecté ñun ñi nga xamante ne ay père lañ waaw xale yi nag wax dëgg yàlla damay gis xale yi man sax affaire bi day dawloo sama yaram damay gis ay xale yu ndaw ñu nekk ci tali bi di yalwaan bis bii li koy màndargaal mom moy nak saytu bu baakha a baax àq ak gone yi waye itam nak di fatali ni gone nit la kom ñep war nanoo samonté ak ak mag di ko diko di ko dundal di ko waye itam nak di ko man ma am jàngat li ma am parents dañu wara té xalé école soit nga dugal le métier. jang samu traîner ci tali wala mu yelwaande extra extra mëna ñak mëna ko jangal alcorane jangal ko école elek mu mëna jërëm bopam mais boo ko bàyyi miy taxawal ci àll mi fanaan ci mbir bi vraiment loolu tamit naaj lu man nag état état ah état da si jéem a gëstu rek ah yaakaar naa ne état bu ci gëstoo def ci li nga xamante ni moom la ci war a def ah <laughs> yaakaar naa ne affaire yi dina dina dina sotti de incha allahu rabbi. fi nu toll nii tembe li nu war a def nag mooy xool naka lay état nag war a mën a nag du xale li nga xam ne kon moom mooy fexe ba xeex. ñaawteef yi nga xamee ni ñu ngi koy def ci kaw gone yi waaye itam nag xool naka la état mën a def ngir kon mën a gunge way jur yi le jërë ngeen jëf xibaaru bitim réew euh, li ma leen ko waxee woon ca ba ñuy door nag euh, ca Mali euh, ngir rek jàppante bi nga xamante ne am na diggante Choguel Maïga di Elimane Diori Ndiaye ak militaire ya Euh, Mali nag daal di am ab euh, crise politique fu ñu toll tembe ca bopp réew bu Mali limaanu jëwriñ ji nga xamante ne moom moo nekk euh, ministre transition di Choguel Kokala Maïga moom it am na ay jafe-jafe ak ñoom ginnaaw nag ba mu taxawee Euh, publiquement daal di ŋàññ li nga xamante ne moom mooy doxalinu militaire yi ci ab discours ca Bamako euh, fukki fan nag juróom euh, benn ci weeru novembre li mu naqarlu rek mooy li ñu puus élection yi nga xamante ne mënoon nañ ko amal ngir tabb fa ab njiitu réew bu bees boo xam ne civil nag ñoom ñoo koy votel daal di nag tamit dàqaat li nga xamante ne moom mooy sos ab autorité indépendante ngir rek mu daal di organiser ba tey jongante yi ma leen doon wax euh, léegi waaye lii lépp euh, kenn daal di ko ci euh, laaj xalaatam dañ ko daal di beddi loolu nag mu daal di koy naqarlu waaye nag kàddu yi mu yëkkati Euh, militaires yi daal nañ koy euh, naqarlu benn ci ay classe politique bi nga xamante ne moom mooy yeewoo foofu euh, jàpp nañ ne ki nga xamante ne moom mooy Choguel Maïga joxu leen benn worma ci li nga xamante ne nag moom mooy la ñu tënkoon ca assise nationale refondation ba ci loolu nag bokk na ci parti politique yi nga xamante ne dañ ko wàññi waaye nag kenn appliqué wu ko ndax am na téeméeri partie yu bees tàq yoo xamante ne nag dañ leen euh, enregistré ci diirub ñaari at euh, mayga nag jàpp na ne loolu nag euh, ñi nga xamante ne ñoom classe boobu noonu daal nañ koy wax benn parti ci classe politique bi lu ñu daal di wax la ab frein la ngir rek ñu daal di suqal ci politique ci réew boobu nga xam ne moom mooy réew bu Mali. ñu wax ci leneen ca république démocratique bu Congo la ñuy jàll foofu nag euh, mausolée bi nga xamante ne moom mooy euh, mausolée patri lu mu mbaa Lumumba euh, mi nga xamante ne nag ab ci indépendance dañ ko daal di yàqate guddi euh, guddik euh, dimanche fukki fan ak juróom-ñaar jàpp nag lundi fukki fan ak juróom-ñett ci weeru novembre ab l'enquête nag daal nañ koy euh, tijji ngir xam rek yenn Samba booy ñoo def jëw ju ñaaw jile bile Mose nag dafa daal di denc. bëñ yi nga xamante ne moo nekkoon bëñu Patrice Emery Lumumba euh, bi nga xamante ne nag moom mooy euh, bëñ yu mujj yi nga xamante ne euh, boobule héros yoroon na ko te justice bu Belge daal di koy delloo nag bi justice bu Belgique ngeen baal ma daal di koy delloo ay mbokkam boobaak léegi nag ñaari at ginnaaw nag ay ati at yoo xamante ne nag defoon nañ ko ubbi l'enquête ngir daal di mu jot ci bëñ yooyu lee Aïssatou Ba dina ci indil ay leeral gannaaw bi nga xamante ne ay defkatu ñaawteef daal dina ñooy dal ci kaw mausolée di kii di Patrice Emery Lumumba foofee ca Kinshasa ca RDC daal di fay yàq lu bëri ca guddib dimanche jàpp altine police bi nekkee ci bile dëkk nag daal di nay teg loxo bile bërëb yokk kaaraange gi itam laata ñuy mën a ràññee ñi nga xamante ne ñoo amal yile ñaawteef ba tey bile police jot nay fësal ay empreinte yoo xamante mënees na leen jàppale ngir ñu mën a ràññee yile samba booy boobee mosole nag ñu amal fa ay yàq-yàq yu am solo toj vitre ya daadee dëpp li nga xamante ne moo nekk sax kay ba jaxase bërëb ba yépp li ni mel nag jawriñ bi nga xamante ne moom lañ dénk wàllu culture foofee ca Congo daal dina koy ñaawlu ci am bind di wax ne ñile dañoo bëgg salfaañee valeur bi nga xamante ne bile bërëb am na ko waaye nag ñi nga xamante ñoo nekk kilifa yi àdduwuñu jëmale ci bëñ bi nga xamante ne nekkoon na ci boobee bërëb bu nga sukkandikoo ci famille ci kii di Lumumba la jógee bile bëñ nag dañ ko daadee woon rek rawale gannaaw bi nga xamante ne saytu woon nañ ne bile bërëb amatul benn kaaraange waxtu bii nag ñu ngi ko denc fu am kaaraange foo xam ne mënuñu ko fësal. jërëjëf Aïssatou Ba ñu jàll ci xibaaru tàggat yaram moo nar a sax xibaaru marax bi euh, ginnaaw nag match Sénégal ba démb entraîneur ba nga xamante ne moom lañ fa tegandi euh, balaa ñu ut nag beneen entraîneur bu bees daal dinay rafetlu bilan bi nga xamante ne Sénégal defandiku ko euh, ñeenti match yi nga xamante ne ci la téye équipe bi ginnaaw nag ba jëwriñ ji nga xamante ne moom lañ dénk wàllum tàggat yaram fii ci Sénégal daal di dàq Aliou Cissé éliminatoire na Coupe d'Afrique Nation football euh, atum 2025 bu Bouna jaw euh, jàpp na ne liggéey bi mën naa wéyandi naam waaye nag dañoo war a yokk li nga xamante ne nag moom mooy ay performance wu équipe bi waaye nag moom ci wàllu boppam euh, moom Pape Thiaw li mu xam mooy boppam la xam waaye xam na ne euh, digganteem ak équipe nationale ci euh, téyendi gim téyendi bi la équipe jeex na tàkk moom nag mi ngi déglu ñi nga xamante ne ñoom ñooy autorité yi nekk ci nguur gi ñu ñu ñu xam rek ne moom nan lay mujjee ak équipe bi nga xamante ne moom mooy équipe nationale bu Sénégal moom it mi ngi doon àddu ci micro Aïssatou Ba. On match bi am nañ ci ndam ñaari bal ci dara maa ngi ci am mbégte bu baax a baax di jaajëfal ñi nga xamante ne mooy sama joueur ndax joué nañ match bu mag ba fexe ba daan équipe bi ndax xam ngeen ne qualifié nañ ba pare donc mënoon nañ ñàkk motivation waaye fexe nañ ba am ndam ci kaw équipe bi euh, waaye nag xam ngeen ne. football moom saa yoo footballee ba pare am na ay joyante xam ne di nga ko war def am na ay joyante yu bëree bëri yoo xam ne ñu ko war a def ci coppali ci football bi nga xam ne def nañ ko loolu nag dinañ ci def liggéey bi nga xam ne moo ci war euh, ñi nga xamante ne ñooy directeur technique tamit dinañ wéyal li nga xamante ne mooy joyante bi ak bépp jour boo xam ne yaakaar nañ ne mun na indil dara équipe nationale du Sénégal lii di liggéeyu directeur technique national dinañ ko wéyal ngir fexe ba liggéey bi gën a mucc ay li ci sama avenir ci kaw bopp équipe bi rek loolu man mbokk téléspectateur yi global télévision xam naa du ñàkk rek ñu ñëwaat ci bile élément ci seen yeneen jotaayu xibaar yi ñu leen di jaajëfal bu baax ci teewlu bi di rafet lu seen ànd ak ñun mbokk téléspectateur yu global télévision ñu leen di jox di daje bu 20h jotee Ourey Fall Diouf dina fi teew ngir dégtal leen xibaar yi ci kàllaamay nasaraan ñuy gërëm équipe technique bi nga xamante ne ñoo jàpp ci xarala gi ba mu yem ak euh, rédaction bu global télévision. Euh, ñu leen di jaajëfal di leen ñaanal ngoonu jàmm jërë ngeen jëf.